sëriñ bi sëriñ Cheikh Aliou ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant suñu bunt ci lislaam xaadim rasul di ñaanal suñu sëriñ sëriñ Mountakha Bachir mu yàgg fi lool te wér sëriñ Cheikh dañu ñëw tey man ak délégation bi ma àndal ci turu sa xarit sëriñ président Macky délégation bi ñu ràññee ci madame la ministre de la femme soxna Ndeye Saly Diop Dieng ràññee ci monsieur le directeur général de SICAP Mamadou Kassé monsieur le directeur de cabinet adjoint bu président la république Demba Diouf monsieur le gouverneur de Diourbel monsieur le préfet de Mbacké et le sous-préfet de Ndam ànd ci aussi ak euh, monsieur le conseiller Barasso fekk fii sa taalibe Morlo ak Serigne Moussa Thioune ak waa Touba soxna Marème Ndiaye soxna Aïda Gueye ak waa Touba yi. président Macky Sall moo ñu yebal ci bés bi pour ñu ñëw jottalil ko siyaaram ak nuyoom jëm ci yow wax naa ko bi ñu egsee ñu ngi jaar ci kilifa gi Serigne Amadou Makhtar Mbacké jox ko. ziyaare président ak yóbbante président président ne woon suñu egsee nañ egsi ci njaboot gi kenn ku ci ne fa ñu nekk ñu fekk la fa jox la nuyoom ziyaareem ak feddali kóllëreem digganteem ak kër gi waaye digganteem ak yow fu ñu ci dem rek wax naa ko ne bés bii mën ngeen ko bokk ndax diggante président Macky Sall ak Darou Khoudoss lu yàgg la te yaatu te nga gën ma koo xam loolu loolu rek jaroon na mu ñëw ànd ak yenn bés bi ba mu jeex waaye bés bi li mu làmboo ci ay mbóot ci ay ngëneel jar na aussi teew wala yónnee wax naa ko sëriñ bi ne ko su ko ko agenda mayoon jaadu woon na mu teew bokk ak yenn bés bi ndax xam na ne yéen a ko bokk kon boog président mi ngi day nuyu bu baax di la siyaare di la ñaanal waaye tamit di sàkku ngeen ñaanal ko bu baax ci barke bés bi ci barke borom bés bi ba yéene yi nga xam ni am na ko ci réew mi yëpp suñu borom may ko kàttan mu eggale ko ak jàmm ci nim ko bëggee loolu nag mi ngi ci sàkku it di ñaanal waajuram sëriñ Mountakha Bachir mu yàgg fi lool te wér di ko sant bu baax moom it ci taxawaay bi nga xam ni am na ko ci wetam ak njabootu Serigne Touba yëpp sëriñ Cheikh Aliou daal président Macky Sall sa xarit mu ngi lay siyaare di la ñaanal di sàkku ñaan ci bés bi mais di feddale aussi coloré digganteem ak njaboot gi yëpp waaye digganteem ak yow kàddu yooyu la waxoon ne bu ñu egsee lañ ko rotol ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa di julli ci yonent bi muhammadu rasulullahi salallahu taala alayhi wa sallam sant xadimu rasul muy borom bis mi waxoon ne shahidtu anna allaha rabbul xalq wa anna muhammadun rasulul haq euh, kooku moo demoon ci géej ga euh, liggéey liggéey bi mu liggéeyal muhammadu rasulullah liggéeyal ko jaare ko ci moom liggéeyal ko sunu borom tabaraka wa taala euh, toppandoo sunu Muhammad sallallahu taala wa sallam di sunu yonent liggéeyal ko ci bindeef yi ci defar doomu adama yi ba patrimoine bi si fa tey fii mel nii muy turaas bi nga xam ne moom la ñu bàyyeel euh, mu ànd ak non violence waaw nga xam ne lu na daj na ko ci àddina waaye defar doomu aadama ci la roy yonent bi ba sunu borom may ko ci lu jafe invité naa fii nga toog Abdoulaye Dieye alaaji Cheikh Abdoulaye Dieye mu wax ne booba Serigne Aliou fi ne mayor organisation magal gi Serigne Touba bind ne ilaya xaadallahu ma lam yakuni wala yakunu abadan li mumkini mooy li yàlla may mayu ko kenn sañ na ko ndax da ko ko woon ma ne ko nag ñaan projet la projet da ngay def da nga koy ficeler def étude de faisabilité def requête de financement adjudication et cetera ba ak ci phase de réalisation phase de réalisation bi nag ci lañ toll kon koo xam ne xumaag tardé woon nga ko wala sarsaara jot na nga xam li sëriñ bi liggéeyoon moo di kon dafa wéeru ci suñu borom tabaraka wa taala def tawakul di nekkal fi Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam liggéeyoon nag royukaay la roy la fi bàyyi kon alhamdulilah yaakaar naa ne indi na apport bu considérable ci jàmmi réew mi indi na ko itam ci économie réew mi indi na ko ci xalaat yi nga xam ne mënees na ko appliquer partout dans le monde te dafay am njëriñ kon yaakaar naa ne moom cas d'école la mu ne son nañ ko jàngale ci école comme ni ko euh, turux yeneen yi xulafa yeneen yi ci yeneen tarixa yi suñu maam El Hadj Malick suñu maam Limaamu Laay Cheikh Ibrahima Niass Cheikhul Islam ak waa Laayeen ak ñu baax ñi fi newoon ci senegal yëpp kon Sénégal am na loo xam ne lu jafe la mooy jàmm kon alhamdulilah noo ngi ñaan yàlla def jàmm ci réew mi euh, xame bi nag am na ndax yaakaar naa ne président boo ko laajee lu jiitu at genn wàll lu jiitu mu nekk président fekk na ma daaru nay am na lu ma ko waxoon xam na ko xam naa ko waaw kon alhamdulilah noo ngi ciy sant bu baax a baax bu fekkee teew ngeen fi euh, di sant bu baax itam sama rakk ji di nday sali bu baax a baax a baax yàlla boole nu ak mbokk te rafetal ko lool waaw di ci dox di ci wax ci wàllu gu ne ñu nag ñi ngi ñaan Sénégal gii nga xam ne amul lu dul moom te euh, nu bokk ko te suñ tubaat jàngal nu nu ñuy wute jàmm yàlla def fi jàmm ndax bala nga xam ne jàmm neex nga ñàkk ko ndax occasion li muy am bariwul te bu demee dootu gaaw a ñëw kon nag nanu préserver jàmm ji loolu la ñuy ñaan yàlla na yàlla def jàmm ci Sénégal defal ko jàmmi pour sénégalais yëpp ndax réew la moo xam ne noo ko bokk te mën nu koo séddoo kon ñun ñëpp nan wut jàmm yàlla saxal fi jàmm yàlla na ko fi yàlla jëf bi jaay yi say dubu jot ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm